gan gi mi ngeeg ñun ci téléphone Fatoumata Niang Ba présidente UDSR bokk itam ci conférence des leaders bu benn Bokk Yaakaar ñu ngi lay nuyu di la dalal ak mbégte ci matinalu Rewmi FM. ñu ngi lay nuyu Fatou di vraiment dila la jaajëfal di rafetlu bu baax tey invitation bi. Mm. di souhaiter mes meilleurs vraiment équipe Rewmi FM yëpp. Mm. mais aussi ñi déglu ñëpp si Sénégal maa ngi leen di souhaiter une bonne et heureuse année. di wax année bi na nekk vraiment année wu jàmm ak salaam. Mm-hmm. amiin yow itam sant bu baax vraiment. Mm-hmm. jërëjëf alors ñu tàmbalee waxtaan wi ak euh, discours président de la république ni mu ko baaxoo bi at mi jeex beneen di tàmbali yëkkati na ay kàddu euh, yow yan jàngat nga jàpp gannaaw euh, discours président Macky Sall bi. waaw Fatou jàngat yi ma si am rek mooy man damay euh, rafetlu bu baax tey euh, discours bi parce que tey képp kuy euh, doomu Sénégal so dégloo le président Macky Sall wax sa xel dafay daal di yokk tamit bu baax yaakaar bi nga xam ne moom moo mës am si parce que discours bi. soo ko dégloo da ngay xam ni vraiment tey c'est le président Macky Sall euh, le républicain moo doon wax ak askanam wax leen maanaam si réalisation wax leen tamit si bilan wu année mille vingt deux bi bi nga xam ne tey gis nañu ñun ñëpp euh, li nga xam ni mooy guerre Ukraine bi Covid bi ba mu ñëwee tax suñu économie euh, sooxe mais tey. si biir loolu yëpp gis nañu président Macky Sall dafa euh, jël lépp teg ko jàppale euh, doomu aadama yi si la def yenn euh, subvention yi bi nga xam ne tamit pour gën favoriser le pouvoir d'achat si biir loolu may joxe ay quelques exemples yi nga xam ne tamit wax na ko parce que si biir année deux mille vingt bi moom dafa jàpp ni ak gouvernement am dafa bëgg a def année sociale te loolu loolu lañ doon gën a xaar si moom parce que soo xoolee monde entier Euh, rëq-rëq yi am yëpp c'est lié à la guerre et à la Covid mu ne si biir année bi dina gën a jàppale euh, éducation bi maanaam dina créer vingt deux lycées ak ay collèges si yenn régions yi nga xam ne mooy les régions phares comme Thiès Dakar Kaolack Kaffrine Sédhiou mu ne dina vraiment renforcer tey la protection sociale si deux mille atum deux mille vingt trois bi ci mobiliser ay force ay financements de quatre cent cinquante milliards. li nga xam ne mooy bourse sécurité familiale yi nga xam ne depuis 2013 ba léegi sénégalais ñu ngi si jëfandikoo te mu doon li nga xam ne dañ ko rafetloo mu ne enveloppe yi nga xam ne par ñetti weer lañ koy joxe dina ko yokk dina jóge juróomi junni jàll si juróom-ñaari junni mooy trente cinq mille donc mun naa ñu daal tey ba ma dégloo le président Macky Sall sama xel dafa daal. Hmm. ba pare vraiment suñu yaakaar dafa gën a yokk. alors wax nga année sociale si réalisation mu def. Mhm. ak tamit si ëllëgu Sénégal tamit. Mhm. wax nga année sociale waaye duguleet ñu ñu koy dig te année sociale yooya dafa mel ni sax ci la jafe-jafe doon gën a tar lu tax bi yoon ñu war am yaakaar. noo xamul dox ñu war a am yaakaar. parce mhm. que ba ñu falee président 2012 ba ni ni mel man damay jàpp ni euh, tey lu président Macky Sall moo am la meilleure politique seen politique sociale du Sénégal de 1960 à maintenant. parce que tamit euh, faatu ñun ñëpp damay wax ni tamit ay euh, sénégalais lañu doomu sénégalais ay waajur lañu. Mm-hmm. ay doom lañu lépp lañu tamit ci réew mi. Mm-hmm. mais tey ñu am président bi nga xam ne tey dëgg la soo xoolee damay joxe rek exemple lu CMU. CMU dafa doon li nga xam ne dafa am solo mooy couverture maladie universelle. tax na hôpitaux yu bëri sonn de ndax dette hospitalière bi dafa yokk. tey CMU boobu ma lay wax. Mm. gis nga ma dem par exemple grand fi gi ma dëkk rek mhm. chaque année dinañuy jéem a xool naka la ñuy ndaw ñi gis nga soo demee ci école yi xam nga nit ñi peut-être xëy na duñu xam bu baax sax lan mooy njëriñu euh, li ni mel mhm. sooy dem di enrôler maanaam directeur d'école yi wala population bi sax mhm. ñoom ñoo lay gën a sant parce que tamit bu ñu xeebal benn waajur bi nga xam ne tey mi ngi nekk ci gox pour doomam faju ji sax dana am problème boobu nga ñëw ci ñaat téeméer soo enrôler doomam at bi yëpp maanaam payor ki day fañ day wàññeeku bu baax a baax a baax a mm. baax loolu xëy na su amee ñenn ñi nga xam ni ah dafa ñoom ñoom pour ñoom du dara. Mm. mais dara la si ñenn ñi. mais loolu am na njëriñ tey bourse familiale yi. waaw man démb rek damay toog am ñu may woo ñu bëri di la woo nan la ah bourse familiale yi day ñun day vraiment bëgg si bokk mais président transparence moo tax mu jël bourse familiale yi mm-hmm. mais délégué ko ñi koy joxe xam nañ ñu koy jooytu ndax seemi bu yabalee ay nit ñu dem faju ji du ñu fay parce que président moo teg boobu politique mais hôpitaux yi fay ñu leen liñ leen ameel léegi ñoom tamit seen ay obligation duñ ko mun a gérer géré ñu amaat yeneen problème tey hôpitaux yu bëri ci Sénégal CMU bi daf leen lor keroog rek euh, insuffisants rénaux yi mënul woon faju c'est parce que PNA euh, CMU fayu ko moom tam mënul woon fay ay fournisseur am moo tax ñu bëri di laaj est-ce que Macky Sall wala président Macky Sall politique sociale bi mu teg mën na ko ndax ay bor lay mujje ci yenn structure yoo xam ne aussi dañuy mujjee nërmee lu soo mayewul xam nga ki ñëw naan la da lay renforcer sa protection sociale de quatre cent cinquante milliards su ko mënul woon du ko def hmm. ci ñëw bërki de moo njaay euh, joxe une enveloppe de quarante six milliards euh, foog naa ni pour dimbali askanam foog naa ni su ko mënuloon du ko def ba Covid bi tàmbalee ñu jël mille milliards vraiment teg ko pour dimbali askan bi ñii ñu leen dimbali si dund ñii ñu leen dimbali si électricité leen di dimbali si ndox. Mhm. su ko mënul woon foofu noonu. du ko def bi fu fee dee. su ñu ñëwaatee si CMU bi. Mhm. damay wax leen rek day am des fois peut-être des retards de paiement. Mhm. de manquement man li may wax ni je suis bien placé pour en parler. parce que dama am waajur bi nga xam ne <laughs> moom si santé la nekk. depuis plus de vingt ans trente ans. ba may toog des fois la wax de plan Sésame suñu jégee CMU plan Sésame xam nga mooy pour mag ñi. ba léegi mi ngi dox. ku am soixante ans. soo bëggee fajoo mm-hmm. da ngay dem ba si structure médicale ba ñu defaral la ñu enrôler la mm-hmm. defaral la billet wala ticket mm-hmm. nga dem si hôpital ba soo demee doo am problème maintenant nag des fois ay arriver comme dans tout structure tey fi nga nekk sax yow di liggéey sax des fois mu am retard de paiement loolu dafay am loolu c'est dans l'état normal <laughs> des des choses mais loolu broquewul freinéwul benn yoon li nga xam ne mooy politique sociale du président et dama koy waxaat fii CMU bourse familiale mhm. mi ngi fonctionner te mi ngi dox mhm. rien à avec les défauts de paiement ou les retards de paiement d'accord waaye réew mi moom amuñu retard de paiement ma préciser loolu alors euh, <laughs> loolu itam nemmeeku nañu ko euh, si euh, même bourse yi ñu bëri toog nañu ay weeri weer jotuñu alors ñu avancé discours bi noo ko déggee ak concert de casserole bi Yewwi Askan Wi woote woon ñu bëri itam tëgg keroog 31 décembre man discours bi de li may wax ba waxtu ba jotee vingt heures man ak sama njaboot ak sama famille. Hmm. dañ ko déglu convenablement. Hmm. du bruit du dara lu tax. parce que tamit nag sénégalais yi dañoo nekk ay nit yi nga xam ne dañoo yeewu dañoo nekk ay nit yi nga xam ne. Hmm. dañoo xam nag lan mooy seen wareef. ak seen ak ak yelleef. gis nga tey mun na comprendre nag ñun ñëpp ñuy politique. mais à moment donné nag. dafa fekk nii tamit da ngay jóg xoolaat sa bopp nga xam ne politique ndax am na lu mu laaj ak lu mu laajul. Mm. concert de casserole d' accord baax na mun naa leen ko nangul ñoom mais tamit nit yi nga xam ne ñoom seen bopp ah mat nañu li ñu doon mat nañu kilifa topp ñu leen si loolu barki Demba Ndiaye. Mm. ñu ngi koy woowee flop yéen journaliste yéen ko ko tuddee woon. Mm. ba mu amee yow ak seen morom ak man mii gis nañu c'était un échec total bii nii ba mu amee échec total parce que kenn topp leen. xam nga tamit nag tey ñu nekk réew bi nga xam ne nit ñi liggéey ak vraiment lu leen tax a jóg mooy xool naka la Sénégal di jëmee kanam. Mm. ñu naan dañ leen di topp si ay caaxaan. caaxaan yoru réew. Mm. ku bëgg a yor réew foog naa dafa am taxawaay bi nga xam ne moom ngay demee donc man loolu nga xam ne mooy conseil pour man sabotage laa ko jàppee mm. pour man yëfu xale laa ko jàppee man pour man dafa nekk yëf yi nga xam ne tamit du yëf yu am fulla ak fayda mm-hmm. parce soo toogee ba ma demee ba déglu discours ba pare si la gis xëy na si si internet bi nga gis dem benn gox gis benn leader nekk si Mermoz wala kenn nekk si kër góor gi am juróomi militant wala juróom benn militant yu ko wër ñu nekk di tëgg boor limite ça frôle le ridicule maintenant nag ñun dañoo am njiiti réew mi nga xam ne dafa nekk vraiment dans le temps de l'action le temps de la bienveillance nekkul si bruit nekkul si terrorisme intellectuel nekkul si xiiroo ŋaayoo ak wax ju ñaaw barki demoo Ndiaye wax naa ko ba ma nekkee Grand Yoff nee naa ñun foog naa ni suñuy doom ñooy relève bu ëllëg. Mm-hmm. man damay vraiment tiit su ma gisee tey yenn comportement yi nga xam ne ay mag ñoo ko am si réew mi. Mm-hmm. wala di joxe yenn exemple yi moo tax lu ñuy mun def dañu gën a farlu suñu njaboot mm-hmm. seen éducation. jàngal leen xale day doon ëllëgu réew te ëllëg. suñu doom yi ñoo yore yor réew mi te donc li ñu jàngal suñu réew suñu doom yi ne leen ëllëg mm-hmm. du saaga kilifa diine du tëgg bool du du du tiiñalaate du génn ay du teg tuuma si deru nit mooy yor réew parce que tamit nag loolu mata lu mat a bàyyi la te tamit lu am solo la vraiment. kon daal concert bi leen a déglu discours bi alors. Ah, discours bi de moom vraiment moom. <laughs> képp ku Sénégal déglu nga ko. Mm. Benno Bokk Yaakaar daje ngeen jamono yële doon waxtaanee nee ngeen yu bari ba mu des candidature président Macky Sall wala candidature coalition bi ci deux mille vingt quatre mais ndax yéen ñëpp ànd ngeen ci bennoo ngeem benn mbër yóbbu ko ndax am na ñeneen ci wet gi ñuy wax ne euh, balay loola faaw ñu teg coalition bi càmbar ko ba noppi indi ci ay coppite fi mu ne ci lan ngeen déggoo jëm deux mille vingt quatre ak réforme Benno Bokk Yaakaar. d'accord nga nettali moom séminaire boobu maa ngi fa woon mm-hmm. en tant que leader comme ni nga wax membre de la coalition Benno et de la conférence des leaders mm-hmm. mais mun naa wax ni du benn yoon la ñu wootee séminaire boobu mm-hmm. pour wax ni dañuy def benn annonce wala génne benn xibaar bu officiel ci candidature euh, euh, président Macky Sall séminaire bi bañ koy organiser c'était plutôt pour xool naka la ñuy maanaam restructurer coalition Benno Bokk Yaakaar pour ñu am coalition maanaam dëgër bi dëgër laayam gën a yokk hmm. pour gën a préparer élection présidentielle 2024 beneen bi tamit mooy si biir séminaire bi am na ay leaders yu bëri ñu bëri tamit wax nañu ñoom suñu sañoon le président Macky Sall si boppam mooy nekk candidat euh, coalition bi mu doon li nga xam ne tamit nag lu may rafetlu la tamit li nga xam ne moom laay partagé meneen bi mooy le président Macky Sall si biir séminaire daf ñu xamal ni moom si boppam kenn du ko dégg ko mu prononcé wu si waxu candidature ou pas et bés bu si waree wax dina si wax te wax nañu lu tax ak fi mu ko teg maintenant nag je pense que li gën a am solo mooy nañu xool comment réformer vraiment cette coalition Benno Bokk Yaakaar et tamit toog déglu ki nga xam ne mooy le président Macky Sall si fi ñu jëm. Mm-hmm. parce que tamit nag li gën a ëpp solo mooy liggéey li gën a ëpp solo mooy naka la Benno Bokk Yaakaar taxawaayam tamit nag si euh, si si biir euh, fi ñu jëm si maanaam si deux mille si si élection présidentielle deux mm-hmm. et pour loolu nag séminaire bi vraiment était venu au bon moment te tamit vraiment lu ñu soxla woon la. d'accord ndax séminaire bi tax na ngeen déggoo xëy na ndax ñu bari gisuñu woon seen bopp ci ñu yëf yi doxee. UDSR bi nga jiite sax euh, bokkoon na ci ñi jàppoon ne xëy na gëdd gi ñu leen war a jox dëgg si benn bokk yaakaar joxuñu leen ko est-ce que tey président am na ay solution pour saafara yooyu frustration nekk si biir coalition bi. si séminaire boobu. Hmm. ñu bëri tamit wax nañu tamit li leen metti ñu bëri wax nañ tamit li nga xam ne mooy seeni mbëbët. Hmm. wala li nga xam ne tamit mooy euh, li ñu li ñu yaakaar ni suñ ko defee coalition bi dina gën a jëm kanam. Hmm. comme li nga ku si nekk nag yaa ngi si biir mais xëy na am na lu la neex ak lu la naqare mais dama jàpp ni tamit nit sooy ànd ak moom pour rek l'intérêt du Sénégal gëm fu ñu jëm. Mm. foog naa ni que mu metti que mu neex di ngeen ko lijjanti dinañ ko fa wax mais tamit nag du tee tamit li nga war a def mooy sa liggéey di ko def ba mu mat sëkk. yéen li leen naqari saafara nañ ko. UDSR ah? UDSR li ko di saafara nañ ko wala am président Macky Sall wax hmm. nañ ko ñun lu ñu metti hmm. lu leen metti ñun ak suñu yeneen i morom leen metti wax nañ ko tamit xëy na li nga xam ne moom la jàpp ne hmm. xëy na suñ ko taxawee si lay gën a dem tamit loolu bu mu amee def lu ñu gën a dalal mooy dafa ñu ne moom déglu nañu te moom si boppam xam na ni que am na ay am na ay manquement am na ay failles mais tamit nag loolu mooy ànd ànd <laughs> du du lépp mooy neex yéen lu leen metti particulièrement lu si gën mooy. Mm. fañ ko waree waxtaanee. Mm. waxtaanee nañ ko foofu. doo ko wax fii. xam nga tamit lenn. Mm. mooy comme li ñuy wax rek ay euh, nit euh, suñuy ànd foog naa ni potu mbiir moom. si potu mbiir rek la mën a yem. d'accord fañ ko waree waxtaanee waxtaanee nañ ko te tamit moom mi ko war a saafara. ba mu si jotee tamit wax na lu dal suñu xel ñun ñëpp. donc damay jàpp ni rek vraiment tey lu ñu gën a taxaw. pour gën a dooleel le président Macky Sall. Mhm. gën a renforcer aussi la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu nag ña fa nekkoon ñëpp tamit ba ñu paree loolu moo nekkoon lu moo l'ordre mhm. pour vraiment dem euh, aux législations enfin au législa au présidentiel de deux mille vingt quatre ak toute la coalition Benno Bokk Yaakaar. ñu jeexal ak rapport Cour des comptes bi tey lan mooy sa taxawaay ginnaaw euh, coow li mu jur ak recommandation yi magistrat enquêteurs yi def. waaw man rapport Cour des comptes bi lu ma siy wax rek mooy. man sama loolu laa njëkk a wax foog naa ni jamono yi si ginnaaw rek invité woon nañ ma ma wax si damay rafetlu vraiment tey euh, liggéeyu Cour des comptes. Mm. mais di wax ni tamit rapport bi dans son ensemble dafa nekk rapport bi daal xel. Mm. lu tax xam nga tey rapport bi wane na ni carrément que mille milliards bi nga xam ne moo indi coow li si force Covid bi. Mm-hmm. bañ ko dugalee. teg ko pour ñu gérer vraiment tey euh, Covid bi mm-hmm. gis nañ ni niñ si niñ ko exécuté euh, baax na te jéggi na day parce que sur mille milliards ñu ne plus de quatre vingt dix neuf virgule trois pour cent montant boobu ñu dégagé woon mm-hmm. neuf cent quatre vingt milliards ya def nañ ko fañ ko war a def mm-hmm. te bu ñu fàtte ni Cour des comptes lu si bëri moom dafay relever ay manquements ay irrégularités ay fautes ak ay erreur mm. euh, administrative mu ne si biir loolu gis nañu am na faute de gestion de six milliards maanaam zéro virgule sept pour cent du euh, programme de résilience économique et sociale donc damay dafay baax tamit ñu wane ni carrément si mille milliards yooyu neuf cent quatre vingt quatorze milliards yi def nañ ko nañ ko war a defee mm. six milliards yi am na leen li nga xam ne lëndëm na si bopp nit ñi te président Macky Sall nee na moom si boppam ba muy teg si maanaam kuréel yi ni mel pour saytu moo ko tax a jóg. Mm. pour transparence pour bonne gouvernance te nee question bi ni mel moom dafay demander pour exploitation vraiment rapport au cours des comptes bi mm. si gestion financière ou euh, force Covid bi ñu tam ñu eggali li ñu war a def jël seen disposition yi nga xam ne ak seen matuwaay yi nga xam ne mooy li ni mel mm. pour su jeexee moom si boppam dina si xool matuwaayam si jël te man position boobu laa taxawee. lu tax bi yoon ñu war a am yaakaar euh, contrairement ak yeneen rapport yi nga xam ne jaar na fi euh, te dara mujj ci. mais xam nga tey damay wax ni rek toujours dañuy nekk dans la spéculation. Hmm. toujours tey dañuy nekk ñun vraiment dans. Euh, si si topp ñu si bëri dañuy topp te ci riiru ri ñenn ñi dañuy topp tey xëy na riiru yenn euh, opposants yi mm-hmm. parce que nga coow li ba mu jógee lool lool dama doon baax sax opposition bi nga xam ne mooy nekk di si wax ak ñenn ñi nga xam ne euh, société civile bi nga xam ne ñenn ñi nga xam ne dañoo am vraiment euh, convenance politique ñu leeral ni ñoom seen bopp vraiment rapport bi ba mu génnee mm. li nga xam ne loolu la ñuy wax ni ñoom dañoo jàpp ni mm. dafa am ay luubal zéro virgule sept pour cent la. waroon nañu rafetlu lu wax ne du montant dégagé amul benn jafe-jafe maintenant nag damay wax ni cour de comptes suñ ko fa tegee pour mu saytu la. pour mu def ay vérification hmm. et si biir loolu tamit cour des comptes du condamné du def lenn lu dul rek relever ay manquement irrégularité hmm. si biir loolu man dama ni ànd naa si liggéey bi si taxawaay bi maintenant nag te a une procédure en cours procédure bi su jeexee si la ñuy wax te gisuma fi benn yoon ku ñu épinglé hmm. ñu ne kii dañ kaa épinglé nii la demee te ñu toog di seetaan amul. Ah, OFNAC ak yeneen rapport ay wax rek moo fi am ba léegi ah, ah, ay wax la rapport OFNAC ak ñoom seen en tout yéex na lool. ni CMU bi yéexee ak yeneen ak yeneen <laughs> nga koy bëgg a méngaleeg suñu salaire yi ñun moom balay weer bee dee ñu fay ñu macha allah madame Ba ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM fàttali ne yow yaay njiital UDSR bokk itam ci conférence des leaders bu benn bokk yaakaar. maa ngi lay gërëm bu baax Fatou. di la sant di sa di sant aussi toute l'équipe de mi FM. di wax ni ba beneen incha allah. jërëjëf.